ce jour tourne autour de la dédicace d'un livre écrit par Marie Kabou, ici présente. Marie Kabou est une Sénégalaise basée en France qui a écrit un livre pour essayer peut-être de pousser nos enfants à aimer la lecture. Elle a eu à présenter le livre hier, si je me trompe, au Et aujourd'hui, nous avions trouvé nécessaire de vous inviter parce que vous n'étiez pas tous à la rencontre à cause des conditions atmosphériques. Il y avait la pluie. On aussi d'une élection, vous étiez en train de couvrir des choses qui faisaient que vous ne pouviez pas être présent. Et comme vous nous avez toujours accompagnés dans tout ce que nous faisons, nous nous sommes dit avant qu'elle ne prenne l'avion, que vous puissiez venir la rencontrer pour parler Marie va essayer de vous décrire aujourd'hui quelque chose qui est très philosophique, que Malin Génie arrivera peut-être à expliquer, mais c'est une chose que nous vivons, mais elle va essayer de vous donner une petite impression sur ça. Son livre s'appelle De toi à moi. Je crois que vous aurez l'occasion de l'entendre en parler. et vous poserez les questions qui vous sembleront intéressantes. je vous remercie et je vais passer la parole à Marie qui va essayer de vous parler. pour me permettre de m'exprimer auprès des Sénégalais, auprès de mes confrères et consoeurs journalistes mais également auprès du peuple en entier. Euh, tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m'a permis de revenir au Sénégal, mon pays natal, pour y accomplir un autre de mes rêves. Je rends grâce à ma maman Thérèse Niaï pour son amour inconditionnel et ses prières qui ont fait de moi une battante Permettez-moi également d'adresser mes salutations les plus respectueuses au chef de l'État, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, ainsi que son épouse, Madame la Première Dame, Mariam Faisal, pour qui j'ai beaucoup d'égards. Mes salutations au ministre Tchernolo, qui ne ménage aucun effort pour rechercher les Sénégalais où qu'ils se trouvent dans le monde, afin de les convaincre de se donner pour leur pays et de revenir investir dans notre Sénégal. Je salue aussi la maison d'édition Baobab, M. Alassane Sissé, par qui je suis passée pour auto-éditer mon premier roman De toi à moi. Mes salutations à toute ma famille, mes amis, mes confrères et consoeurs du milieu médiatique Mes salutations également à tout le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, les Sénégalais d'ici comme ceux de la diaspora, de même que toutes les personnes étrangères ayant fait du Sénégal leur pays d'adoption. Depuis la France où j'ai rédigé mon roman, toutes les conditions étaient réunies et surtout proposées gracieusement par certaines maisons d'édition françaises pour la conception jusqu'à la publication de mon roman et de la promotion en France et en Europe. Les propositions étaient très alléchantes quand on connaît les difficultés que l'on peut rencontrer pour la visibilité d'un produit. Les maisons d'édition françaises ont bien accueilli mon roman et surtout le sujet traité dans ce roman et qui parle de désillusion en amour un fait récurrent dans notre société actuelle et parfois même banalisé. En recevant plusieurs retours favorables, j'ai alors compris que mon roman ne devrait être édité nulle part ailleurs que dans mon pays, le Sénégal. J'ai donc pris contact avec la maison d'édition Baobab par le biais d'un ami, Monsieur Alassane Sissé, directeur d'Obaobab Édition, m'a proposé une édition sur fonds propres. Nous avons ainsi travaillé en étroite collaboration de la lecture, relecture, correction, recorrection, jusqu'à la conception complète de ce roman. Et pour cela, je le remercie infiniment. Depuis la première parution de la quatrième de couverture dans les réseaux sociaux, je me lance ici brillamment. J'ai organisé cet événement en choisissant un lieu assez romantique qu'est le Radisson Blue, avec toute sa verdure qui m'inspire et qui m'apaise, ce cadre qui, d'après moi, correspond le mieux aux invités attendus. J'ai tenu à ce que toute l'organisation reflète le romantisme pour plonger mes invités dans l'aspect romantique de mon roman. De ce fait, Africulture nous a prêté main forte avec son professionnalisme à toute épreuve. Je dis donc merci de tout cœur et chapeau à Oumi Regina Sonidi de M. Ndiaye Modi et son épouse Mamdiara Kabou, qui ont mobilisé toute une résidence pour le tournage de certaines parties du documentaire en fournissant le véhicule qui me déplaçait, dont le chauffeur pris en charge par Sen Média. Sens Group de Madame Camara Antasso nous a aussi rejoint dès le lendemain de son retour de voyage et de son sens aigu de l'événementiel s'est occupé de toute la décoration florale et disposition décorative du roman sur les présentoirs et la supervision du cocktail. Salon Ladifa by Eve, qui m'a rendu présentable par une jolie coiffure. Merci donc à Awana Oussar pour son implication. Dieu merci, l'événement s'est très bien passé pour une première. Encore merci à Alassane Pour ces prestigieux invités du monde de la littérature, je veux citer M. Seydisso, Mme Diagne André-Marie, Mme Yotova de la francophonie, pour ne citer que cela et bien sûr ceux qui étaient dans la salle. Merci encore à toute la presse sénégalaise qui a fait le déplacement. Je vois que vous avez compris que c'était une consoeur qui écrivait un roman. Merci infiniment de votre soutien. Mon peuple a répondu présent, comprenant le but recherché en publiant mon roman chez moi. Avec foi, nous avons réussi ensemble. Je vous remercie. Ce roman parle d'une histoire d'amour entre deux euh, protagonistes qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui ont vécu une histoire idyllique et passionnelle. cette histoire, malheureusement, en, a fini en désillusion. Euh, pourquoi Parce que la distance a réussi à les séparer. Alors, j'ai choisi d'écrire ce sujet pour un peu faire ressortir l'envers en général de, des histoires d'amour. Parce que dès qu'on vous dit d'histoire d'amour, vous pensez au romantisme, vous pensez à la beauté, vous pensez aux rêves, tout ce que souhaitent les gens. Sauf qu'en amour, il y a des envers, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de maltraitance intellectuelle et sentimentale. Et c'est ce fait que j'ai voulu faire ressortir parce que j'ai constaté que c'était un sujet presque tabou en Afrique, dans le monde et particulièrement au Sénégal. Vous êtes monsieur Iram Hassané, Êtes-vous déjà tombé amoureux <laughs> Vous avez épousé la femme dont vous êtes tombé amoureux Et vous êtes toujours ensemble C'est la seule femme que vous avez connue de votre vie Donc, que s'est-il passé avec celle que vous avez Vous Il y a une désillusion. Vous aviez l'espoir de la garder toute votre vie. C'est ça la désillusion. Et je pense que tout un chacun l'a vécu à un moment de sa vie. Qu'on soit jeune, vieux, quand on se sépare d'une personne qu'on a choisi d'aimer, automatiquement c'est une désillusion parce que pour chaque engagement, c'est un espoir qui naît de finir ensemble. À chaque fois qu'on dit je t'aime, je pense que c'est sincère en notre cœur. Quand on se sépare, ça reste une désillusion, quelle qu'elle soit.

je crois en mon pays et quand dans mon pays on a un président de la République, je me dois de le respecter. Après avoir remercié Dieu, salué mes parents, il est de mon devoir en tant que citoyenne sénégalaise de rendre hommage au président de la République. Je ne vis pas au Sénégal, je vis en France. Je ne fais aucune politique. Je suis romancière, je suis artiste d'abord. Et ce en quoi je crois, c'est le respect et l'amour.

tu verras, tu reprends ton temps, on n'entend pas bien. Bonsoir. salue. Et je tiens à vous remercier d'abord par rapport à cette deuxième, est-ce qu'on peut avoir la même définition de l'amour Aimons-nous de la même manière que le pays connaît, en l'occurrence la France Et la troisième question, c'est comment trouvez-vous l'édition au Sénégal Et la quatrième et la toute dernière question, c'est pouvons-nous avoir Euh, je vous remercie, Monsieur Timera. Ce sera avec plaisir de répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, pourquoi Dakar Vous savez, euh, je suis sénégalaise, née au Sénégal, à Dakar. Quel que soit le pays où je réside, je resterai sénégalaise. J'ai une fois en mon peuple et je me considère ambassadrice là où je suis. Mais quand il s'agit de faire quelque chose que je considère moi grand, même s'il peut paraître peut-être tout petit aux yeux des autres, si je peux apporter une pierre à l'édifice de mon pays, je n'hésite pas à revenir. Vous savez, ce livre, quand je l'ai rédigé, je l'ai envoyé d'abord à des maisons d'édition françaises. Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, Ces maisons-là m'ont répondu favorablement. Je pense que le ministre a vu un des mails. Et ils étaient prêts à prendre l'engagement de la promotion, de la conception d'abord, de la promotion et de la distribution, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, et de manière gracieuse. Pourquoi Parce qu'ils ont cru au roman que j'ai écrit. Ils ont aimé le sujet qui a été traité et ils ont pensé que ce sujet, si on le sortait, pouvait aider pas mal de personnes. Alors c'est là que je me suis dit, waouh, Marie, qu'est-ce que tu as écrit J'adore parler d'amour. Donc je me suis dit, si ce roman peut avoir une telle grande portée euh, en Europe et en France, je me dois alors de l'emmener au Sénégal. J'ai payé mes billets, j'ai payé pour l'édition de ce livre et tout ce qui a entouré ce livre jusqu'au moment où je vous parle. C'était mon choix. J'ai fait le choix de prendre un endroit paradisiaque. Tout, tout le monde sait ce que peut coûter Radisson. Mais c'était mon choix parce que je voulais offrir ce qu'il y a de mieux à mon pays et à la jeunesse de mon pays. Voilà pourquoi le choix de Dakar. Bonsoir. Je, je vais peut-être répondre aux autres questions, s'il vous plaît. Alors, euh, euh, vous m'avez demandé aussi la différence de la façon d'aimer entre mm-hmm. Dakar, le Sénégal et la France. Euh, J'ai envie de vous dire que le cœur n'a pas de nationalité. On, on, aime partout de la même façon. Il se trouve par contre qu'on a des cultures différentes et donc différentes manières d'exprimer son amour. Mais un cœur qu'il palpite pour quelqu'un, il palpite de la même façon. Donc il n'y a aucune différence. En Afrique, en Europe, en Asie, on aime tous de la même manière. L'amour reste l'amour. Pour la troisième question, comment je trouve l'édition à Dakar Je n'ai pas de comparaison à Dakar, puisque la seule maison d'édition que j'ai connue, c'était Baobab Édition. Euh, j'ai juste vu la différence entre Dakar et la France. puisqu'en France, certaines maisons d'édition vous proposent de tout faire, de tout prendre en charge. Votre livre ne vous coûte pas un euro. Ils font tout de la conception à la réalisation, à la publication, à la promotion et à la vente. Au Sénégal, d'après ce que je constate, il faut aller par fonds propres. C'était mon choix, je l'ai accepté. J'y suis allée par fonds propres, c'est-à-dire j'ai financé pour la conception euh, de mon roman. Euh, certains me disent pourquoi ne pas avoir cherché de sponsor parce qu'apparemment on le fait souvent dans l'édition d'un livre. Euh, j'ai voulu aller par mes propres moyens parce que je me suis dit si ce livre-là c'est mon bébé, j'irai avec les fonds que j'ai. Quand je ne pourrai plus, peut-être que je demanderai de l'aide ou peut-être que d'autres viendront m'aider euh, spontanément. Dieu a fait qu'on a pu réaliser tout ceci avec mes propres économies et je lui en rends grâce. Je remercie euh, toutes les personnes qui m'ont aidé matériellement à réaliser cela parce que je ne pouvais pas tout faire. C'était très très difficile. Mais c'est vrai que l'édition en France et au Sénégal est très différente, en tout cas de ce que moi je sais, puisque je n'ai travaillé qu'avec une seule maison. Alors, la suite pour ce roman, vous avez pu voir que c'est une série 1. Une série 1, ça veut dire qu'il y a une suite. J'ai sorti la, la série 1 uniquement euh, pour parler, dénoncer la violence sentimentale qu'on peut ressentir dans des rapports, que ce soit amoureux, en général les relations humaines. C'est pour permettre aux gens de se concentrer sur cette douleur-là qui est affichée à la fin, d'essayer de trouver des solutions pour guérir. On constate beaucoup des gens, des hommes comme des femmes qui se suicident qui, qui, qui, commettent des crimes, qui divorcent de manière très très violente ou qui se séparent ou qui s'agressent tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas eu la chance d'exprimer la douleur ressentie en leur intérieur et du coup n'ont reçu aucune aide extérieure. Mais en lisant ce livre, ils comprendront qu'ils ont le droit de sortir leur souffrance. Et en sortant leur souffrance, forcément, le fait d'en parler est déjà une thérapie. qui va les aider à extérioriser, mais aussi sûrement de rencontrer quelqu'un qui leur donnera des conseils à gérer cette souffrance-là et de s'en sortir. Un cœur blessé est souvent presque à l'agonie. Mais il n'est pas dit que tout ce qui agonise doit tout, ce qui agonise doit tout, tout de suite mourir. Il peut être régénéré. Par quoi Par une consolation, un sourire, un accompagnement et pourquoi pas un nouvel amour. Puisque monsieur nous a dit tout à l'heure avoir aimé dans sa jeunesse et a fini par rencontrer l'amour de sa vie. On lui souhaite que cela perdure. Merci. Euh, moi, je suis pas critique d'art, mais juste euh, un peu euh, accentuer mon intervention sur euh, les deux tourtereaux, sur euh, une place magnifique, un endroit paradisiaque. Alors, euh, mais on semble voir deux personnes qui ont des pensées différentes bien qui ne se parlent pas du tout. Qu'est-ce que, quel commentaire allez-vous faire par rapport à la photo ma deuxième question, c'est par rapport à la promotion dont vous avez parlé tout à l'heure. Mm -hmm. comment vous comptez euh, promouvoir euh, cette œuvre, selon Alors, pour la première question, la photo de couverture. Euh, c'est pour montrer le contraste. Parce que vous voyez un paysage, comme vous avez dit, féerique. Et au milieu de ce paysage, deux personnes qui se tournent pratiquement le dos, en tout cas qui font dos au monde. C'est pour parler de la séparation. Le paysage idyllique, pourquoi Parce que quand on s'aime, tout est beau. Même quand vous avez votre amoureuse dans une petite cabane, elle va trouver cette cabane-là magnifique parce que c'est dans cette cabane qu'elle vit son amour avec vous. Mm-hmm. Donc tout est idyllique pour cette personne. Les deux photos qui montrent le dos, c'est pour montrer déjà au lecteur que dans ce roman qui va parler d'amour, ça va être un amour assez toxique. Pourquoi Parce que La femme, l'expression qu'elle montre, c'est quelqu'un qui tourne le dos, mais le monsieur en question, il a l'esprit qui voyage au milieu des paysages. Ça veut dire que lui-même peut-être se sent perdu parce qu'il ne sait pas comment faire retourner la femme vers lui. C'est tout est expressif, c'est comme, comme un, tableau d'art. Il faut savoir le lire et livre à chacun de donner la définition qui lui plaira, en tout cas où elle se reconnaîtra le mieux. Pour la deuxième question, le paysage idyllique que je cite dans le roman. Vous savez, deux personnes qui s'aiment vont toujours essayer de se faire plaisir. Dans le roman, euh, Sima et Aladi sont allés dans un endroit magnifique avec des décors de paradis terrestre. C'était une façon d'y vivre leur amour, leur passion. et l'amour y a été passionnel à cet endroit-là. Seulement, au sortir de ce paysage paradisiaque, peut-être que la réalité leur est apparue, surtout à Aladi, qui a senti que Sima devait retourner là où elle était et que peut-être la distance serait un facteur très bloquant pour leur relation. Ensuite, les cibles. Les de ce roman, c'est toutes les personnes qui se sentent concernées par l'amour. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne connaissent pas le sentiment d'amour. Ce livre est dédié à toute personne qui a déjà aimé ou qui a envie d'aimer ou qui est en train d'aimer et cherche à améliorer sa relation pour la rendre belle, parce que rien n'est parfait. Dans une relation, quand on rentre, on vient avec l'espoir que ça marche. Il s'avère parfois que ça marche et d'autres fois que ça ne marche pas. Donc ce livre, je pense, est dédié à tout âge. Je vous voyez, je l'ai écrit de manière tellement simple qu'un élève de primaire doit pouvoir le lire et le comprendre pour se préparer en grandissant. Les adolescents s'y retrouvent facilement et les adultes aussi, parce que ça, leur, ça les ramène à leur jeunesse, ça les ramène aussi à tout ce qu'ils ont enduré eux dans leur ménage, tout ce qu'ils ont supporté, tout ce qu'ils ont toléré pour rester encore dans leur ménage. Je pense que ce livre peut être thérapeutique pour tout le monde. réew mi d'accord la rédaction de ce livre s'est faite l'année dernière si je vous dis en combien de temps je l'ai réalisé, vous n'allez jamais me croire. L'histoire, elle m'a tellement captivée, je m'y suis retrouvée et beaucoup d'autres personnes qui me côtoyaient s'y sont retrouvées. Ils m'ont dit, Marie, il faut que tu écrives. Relate cette histoire-là. Cette histoire, je l'ai écrite en deux semaines et demie, en moins de 30 jours, parce qu'elle était belle, elle était captivante, et la personne à qui appartient cette histoire était en phase de thérapie, et je me suis dit qu'en écrivant ce livre, je l'aiderai plus rapidement à sortir de sa souffrance, et je pense que Dieu nous y a aidés. Donc ce livre ne m'a pas pris beaucoup de temps, Et je l'ai écrit facilement. Pourquoi Parce que je suis une femme. J'ai connu l'amour, j'ai connu la désillusion et je sais quel sentiment profond peut ressentir une personne qui aime et qui perd l'être aimé. Donc j'y ai transcrit juste ce que Sima m'a expliqué, mais également ce que moi, en tant que femme, j'ai ressenti en écoutant son histoire qui m'a projeté moi à une histoire que j'ai connue. Donc les sentiments, il était facile de les coucher sur mon papier. Merci beaucoup. c'est les géniales de l'Ouest, animatrice de salsa. Donc de ces Merci beaucoup. Effectivement, vous ne m'avez pas laissé l'occasion de me présenter parce que j'aime bien donner mon parcours, parce que je vois que ça encourage beaucoup d'autres gens. Alors, je suis née à Dakar, euh, j'ai grandi un peu à Dakar avant d'aller en France, mais j'ai toujours été passionnée par la lecture et l'écriture. Petite, j'avais un journal intime où je relatais tout ce qui se passait dans la journée pour le soir faire la lecture à mon père dont j'étais amoureuse parce qu'il était <laughs> voilà il était mon ami et mon confident alors quand je lui lisais ce que j'avais fait de la journée et même les bêtises que j'avais faites, j'avais l'habitude d'y mettre l'intention, de, de le faire de manière tellement langoureuse pour ne pas me faire gronder des bêtises que j'aurais pu faire. En grandissant, euh, je me suis adonnée à la danse. J'ai beaucoup dansé, j'ai fait de la danse classique, jazz, moderne, traditionnelle. Je suis venue au Sénégal danser avec les Sotiba Boys. Je pense que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Donc, euh, j'ai dansé avec eux. J'ai défilé également en tant que mannequin, aussi bien ici qu'en France. En France, j'étais plus euh, modèle. Et je me suis essayée également à la chanson quand j'ai commencé l'animation radio. Euh, J'aime bien citer mon frère euh, Chez Rousseau qui a été le premier à me tendre un micro alors que j'étais venue euh, visiter les locaux. Il a trouvé que j'avais une voix particulière. À l'époque, je ne connaissais absolument rien du tout à la radio. Il m'a formée. Le courant est passé et je suis de nature très spontanée parce que très artiste dans l'âme et c'est comme ça que c'est parti. Mamles ayant entendu cette intervention a appelé pour savoir c'était qui cette personne qui parlait dans ma radio, dit ah c'est une amie qui est venue visiter. Il m'a convoqué et c'est comme ça qu'il m'a embauché à Envie FM. Pendant ce temps, j'avais une entreprise de décoration d'intérieur et je travaillais beaucoup avec les ministères et autres. J'ai pu pallier les deux, mais euh, la passion de la radio a été beaucoup plus forte. À la fermeture de Envie FM, Monsieur Omar Dufal, à l'époque directeur de Sud FM, m'a contacté pour que je vienne euh, travailler avec eux. Et Sud FM a su me révéler au grand public. Parce qu'à Sud FM, avec à l'époque Ndefa Toussi, qui était la rédactrice en chef, elle a senti tout de suite que j'avais quelque chose de particulier. Elle me disait ta façon de parler, parce que quand je parlais Wolof, on me prenait pour une dardar, j'ai l'accent très prononcé. Ce n'est pas de ma faute, certains pensaient que je faisais la maline, mais j'ai toujours fait l'école française, ensuite grandi en France et revenu. Donc c'est normal peut-être que mon accent soit comme ça. Elle a trouvé ça charmant quand je parlais Wolof pendant les émissions Malar et autres, mais elle me disait ça ne te ressemble pas. Je te vois dans autre chose. Dans quoi es-tu à l'aise Et moi, forcément, née dans une famille artistique, ayant comme parrain Daniel Cuxac que tout le monde connaît, ayant grandi, euh, je pourrais dire je dirais pas dans les jupons des, des hommes comme euh, Djibril Diop Mambeti, euh, Touré Kunda, Emmanuel Gomez, qu'on appelait Umbagne. Ces acteurs, ces, ces, ces grands messieurs de la scène, ayant grandi avec eux et avec Daniel Cuxac, je ne pouvais qu'être imprégnée de l'art en général. Donc, j'ai demandé à animer de la salsa, des oldies américains, tout ce qui était vieux, parce que j'ai toujours été entourée de vieux. Donc je m'y sentais plus à l'aise et j'étais la seule animatrice de salsa de toute l'Afrique pendant cinq ans parce que j'avais tout simplement osé le faire. Et maintenant, je suis très contente de constater que beaucoup d'animatrices aujourd'hui et d'animateurs, des jeunes gens, s'adonnent à l'animation de salsa parce qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes. Donc moi, ça me rend d'autant plus fière. Après cela, Étant très rigoureuse dans mon travail et apprenant toujours de nouvelles choses, j'ai été, j'ai attiré du moins l'attention euh, du directeur de Africable qui lançait une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Maïcha, qui était la première chaîne panafricaine entièrement dédiée aux femmes. Quand ils m'ont consultée, je suis allée les voir Ils ont vu mon comportement, mon parcours. Ils se sont dit, c'est elle qu'on recherchait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec eux. Et le fait de devenir effigie de cette chaîne, c'était un pur accident parce qu'ils avaient euh, pris des mannequins de tous bords en Afrique pour les présenter à CanalSat pour faire les brochures et bien sûr euh, l'affiche de la télévision. Alors moi, en sénégalaise, quand ils sont venus pour me prendre en photo, ils sont venus en surprise. Et comme j'étais en t-shirt et pantalon, j'ai dit non, vous pouvez pas me prendre comme ça, laissez-moi aller voir ce que je peux faire. Je suis rentrée dans le studio, j'ai trouvé plein de foulards de toutes les couleurs et je me suis mis les foulards sur la tête et des boucles d'oreilles en plumes. Alors je suis sortie à marcher comme une signare. Ça les a impressionnés, ils ont pris la photo et cette photo a été heureusement sélectionnée par Canal Sad qui a dit c'est elle qui représentait la panafricanité. Et c'est comme ça que je suis devenue l'effigie de cette chaîne, la présentatrice vedette. Ça a duré trois ans et après j'ai dû aller en France m'installer pour y finir, euh, pour commencer d'autres aventures. Voilà. <laughs> Je vous demanderai de reformuler votre question, je ne la saisis pas très bien. <laughs> J'ai lu euh, le contenu votre roman, oui. vous mhm. que c'est pas quelque chose de Et ça devait pas aussi vous conduire à préciser C'était conseillé au moins de 18 ans. d'accord. dans mon livre, j'ai parlé de maîtresse pour préciser que qui était revenu à Sima pour lui déclarer son amour et vérifier si l'amour de Sima était, encore intact, juste pour revenir un peu, Sima était tombée amoureuse de et n'osait pas le lui dire pour ne pas gâcher leur amitié. Aladi est donc revenu en, en, au Sénégal et pendant deux ans, Sima a gardé cet amour-là secret. Quand Aladi est revenu, il s'était passé déjà cinq ans où il savait que Sima en était amoureuse, mais lui ne pouvait pas répondre à cet amour-là parce qu'à l'époque était marié et par respect pour Sima refusait qu'elle soit sa maîtresse alors qu'il en avait déjà. Alors vous me demandez si maîtresse n'est pas tabou au Sénégal. Est-ce que vous connaissez un seul homme au Sénégal marié qui n'a pas une maîtresse Si vous dites la vérité. Comment <laughs> Alors, je, je, je, veux bien accepter cette réponse. La polygamie se fait comment On a d'abord une femme, on en courtise une autre pour l'épouser. Mais cette femme-là, avant d'être épouse, elle est maîtresse. C'est les termes qui changent. Au Sénégal, on emploie le terme qui nous arrange. Au Sénégal, on aime couvrir. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, il se passe des choses, on dit le Sénégal change. Le Sénégal n'a pas changé. Le Sénégal a toujours été comme ça, sauf que tout est couvé. Vous parlez de 18 ans. Vous n'avez pas rencontré des jeunes filles de 14-15 ans qui ont des enfants ici au Sénégal Quand vous êtes journaliste, quand vous faites les reportages, vous allez dans les associations, vous voyez des jeunes filles de 14-15 ans qui sont tombées enceintes, qui sont allées jeter leur enfant à la rue Pourquoi Parce qu'on leur a dit que le sexe était tabou. Sans leur expliquer. Ces filles-là, quand elles rencontrent l'amour, elles se donnent à leur homme. Quand elles tombent enceintes, elles n'osent pas le dire parce que c'est tabou. C'est ce fait de tabou qui m'a plus poussée à extérioriser les sentiments de Sima. Parce qu'au Sénégal, on se croit, nous, Sénégalais, meilleurs que tout le monde. alors qu'on est des êtres humains. On a des sensations. au Sénégal, on a des vies cachées. Pourquoi on les cache Pour ne pas être jugé. Parce que le Sénégalais est rapide à juger. Alors qu'on n'est pas Dieu. Celui qui juge, s'il te montre sa vie, tu meurs. Parce que tu te rends compte que tu te croyais aller en enfer, alors que par rapport à ce qu'il a fait, tu mérites le paradis.

on est en 2022, où tout le monde doit avoir le droit de dire ce qu'il pense. Nous, on a réclamé la liberté de la presse. C'est quoi la liberté de la presse C'est de pouvoir s'exprimer librement, de dire son ressenti, quel que soit le sujet. Alors si nous, de la presse, on juge le fait d'avoir une maîtresse, un amant, comment est-ce qu'on jugerait le fait d'avoir un amant Il y a des femmes mariées qui ont des, qui ont des amants. Les gens le savent, ils vont caresser, parce que c'est tabou. Dénoncez, parlez-en, cherchez le fond du problème. Pourquoi ceci arrive Quelle est la cause de toutes ces choses-là Pourquoi la polygamie est acceptée au Sénégal et dans certains pays africains, on va se réfugier vers l'islam, je veux bien. Et nous l'acceptons. Pourquoi Parce qu'on nous l'impose. Quelle femme a envie de partager son homme Aucune. Mais on l'accepte. Pourquoi Certaines par amour, d'autres par conviction, parce qu'on les a élevées comme ça, d'autres parce qu'elles n'ont pas le choix. Les hommes qui sont censés les épouser n'épousent plus parce qu'ayant eu une désillusion en amour quelque part, vont dire je vais faire du rendiguigui. C'est le terme, non Puisque ces hommes-là n'épousent plus, ils vont venir rencontrer une femme, avoir une relation avec elle et l'abandonner, partir ailleurs. Mais ces femmes-là, si elles ne trouvent personne qui les épouse, elles vont se mettre dans un mariage polygame. Mais il n'y a pas un mariage polygame sans maîtresse, je suis désolée. Dites des choses, osons dire des choses auxquelles on croit. Est-ce que ce n'est pas interprétation Peut-être, mais comme je suis... J'ai l'impression d'entendre une qui parle. Non, je ne le suis pas. Au contraire, je suis très, très, très en phase avec ce qui se passe dans mon pays, même si je dénonce certaines choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. J'ai vécu dix ans de ménage. Mon mari, il n'y pas un homme qui lui arrive à la cheville à mes yeux. Il est encore mon meilleur ami. Quand on parle de sëy sëy dafa am sëy dafa am sëykat dafa am sëyaan dafa am ki ngay waxal sëykat dëgg fekk nag loo gis rek day dund day dee et on dit en français toute chose a une fin mais pourvu que la fin soit belle pourvu que la fin soit respectueuse j'ai connu cette fin-là ce mariage n'a jamais été une désillusion pour moi parce que le plus grand bonheur que j'ai connu dans ma vie C'est dans ce mariage-là que Dieu a décidé d'arrêter. Parce que figurez-vous, l'homme ne peut séparer ceux que Dieu a unis. Dieu est le seul à pouvoir le faire. Et quand il le fait, il le fait de manière tellement simple, tellement doux, tellement respectueux qu'on a la possibilité de rester les meilleurs amis du monde. Donc je ne peux pas être féministe parce que moi je lave, je, je je donne à manger, je chante et je danse. Ça, vous avez parlé tout à l'heure d'interprétation. C'est une interprétation que vous faites. Je ne parle pas religion. C'est une interprétation que vous faites et libre à vous. C'est le français qui dit maîtresse. Labat mooy lan doxaan doxaan mooy lan dox ànd nga takk yow en 21 jours amul boo ko waxee na ngay wax lu la neex ça se passe mais c'est pas toi c'est personne ici dans cette salle na ngay doxaan samp cuukeel ba suppu jalañ ñu teg la lu tàng mu jaral la nga takk qu'on se dise la vérité on peut pas se leurrer on est entre nous on est des sénégalais xam nañu li am ci àddina nous tous on a voyagé on a pu mais il faut juste qu'on accepte de dire les choses comme on les ressent de dire les choses comme on le voit Toute personne qui vit souhaiterait rencontrer l'amour, euh, se marier avec cette personne, vivre jusqu'à la fin de ses jours et avoir les enfants les plus beaux. Les enfants qui vont tous réussir, c'est le souhait de tout le monde. baaraam yi dañu tolloo yàlla moo leen bind de amul dara lu fi yem dans tout ce que vous voyez dans la vie il y a des choses qui sont bien d'autres qui sont peu bien mais il faut du tout pour faire un monde. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est l'amour qui est comme une religion et qui doit être au-dessus fu mbëggeel nekk yërmande nekk fa baal nekk fa muñalante nekk fa ànd bi mën a neex c'est ça ma philosophie après si c'est ça être féministe euh, permettez-moi de rester féministe s'il vous plaît man comme yaa ngi ci wolof da ngay dellu parce que Sénégalais dafa bëri wolof yi ñu dégg nga dellu déglu roman bi lan nga dund exactement yaa ngi doon wax ba ngeen nga xam ne waxee justement nga dellu lan moo tax waaw di jéggalu rek ci intrusion wu olof bi ma def dafa am yoo xamante ni voilà boo koy wax faw nga dugg ci olof bi tuuti pour mu am porté bi nga xamante ni moom ngay soxla ndax na nga wax ci situation boo xamante ni Sénégal kese la am et aucun autre pays donc pour ñëpp mun ko jot faw ma tontu la ci olof boobule. alors euh, livre bi ma bind dama bind livre mbëggeel ndax mbëggeel heure bu ñu ko waxee dañuy xalaat lu neex xalaat lu nooy xalaat lu rafet. mais ci biir bëggeel boo déggee ñu la naan na nga muñ la ca naq di moo tax ñu lay muñ loo dinga nga ànd ak nit kenn ku ci nekk teg sa yaakaar ci sa moroom ndax bëggeel gi ngeen di dund ngeen dem ba ci kanam ah loolu changé tàqali koo am ki ci gënoon bëgg yaakaaram day tas yaakaar bu tas mooy désillusion ku ca yaakaar tas ci mbëggeel ndax lan tout dépend ni ngeen tàqali porté bi muy am ci yow ak fi mu lay yóbbu mooy indi nit di def léeg-léeg safaan loolu yëpp ci mbëggeel la nekk man nag ma bind sama livre bi ci jigéen ci nga xam ne muy Sima di jigéen ju baax gis góor gu baax góor gi wan ko lu baax mu bëgg góor googu euh, vertuam ak éducation tax mu toog muñ nga mbëggeel googu pour bañ a yàq xaritoo gi mu xaritoo woon ak waaye soosu li mais bi ñu demee ba ci biir pendant deux ans mu denc loolu bi mu demee ba ci biir waaye si ñibbisi entre-temps beaucoup de choses xew bi waaye si dellu si waatee ci ciment dafa fekk ciment tey la ko gën a bëgg kon xam nga ciment moom mu toog na xaar waaye si ndax mu ngi tegoon yaakaaram si moom waaye si bi mu ñëwee xamal ko ne moom bëgg na ko bële temps mënu ko woon wuyu parce que dafa amoon jabar te bëgg ko woon boole ci coro yi muy am ndax fonk gi mu ko fonk ak cër gi mu ko jox waaye tey bu dëddoo loolu yépp dellusiwaat si moom dafa bëgg a xam ndax ciment li fi nekkoon na ngi fi waaye soxlawul ciment di ko ko wax ndax moom yëg na ko ci biir xolam lii mooy fi histoire bi ñuy ànd muy neex di ànd muy neex ba xëy suba teel duma ne seytaane la duma ne yàlla la euh, bëgg bu yemul muñ da ciy bëri ndax ki bëgg ba mu jeex dina muñ ba muñ lu mu buggul waaye ki buggul tamit te buggul gaañ dina muñ ba muñ lu mu buggul loolu moo leen dal ñoom ñaar bi ñu demee nag ba ci biir ba xam ne xëy na pexe amatu fi ñu choisir tàqalikoo ki nga bëgg lool nag bu tàqalikook yow faw mu metti ci sa biir xol looloo dal Sima xolam metti mu souffrir ndax euh, nitu kersa la woon jëloon waayam si bëgg ko daawul nekk kenn jël waay si yóbbu ko di famille am mu xam leen kooku yóbbu ko tamit ci famille am mu inclu famille bi yépp ci biir relation boobu loolu bu fa yàqu amee day am sensation de gàcce loolu moo indi souffrance am souffrance boobu nag lay dénoncer pourquoi parce que ay jigéen a ngi sëy nekk ci seen biir néegu sëy di fa dund lu metti quelle que soit la personne bu leen ko bañ a teg mun na bañ a nekk sax seen jëkkër mais ay nit extérieur parce que famille mooy sëy ñëw dugg teg ndaw si lu metti luy luy metti ci xolam te du am ku ko giifal day xëy dootul muñ mu ne jëkkëram may ma baat ma dem te fekk ñoom ñaar ñu ngi bëggante mais kooku bu demee li ñuy wax dafay dese suuxa ni suuxa di dalee góor noonu lay dalee jigéen dafa fekk jigéen day war mal boppam ba lu ko metti lu ko naqadi da koy toog muñ ko dencaale ak moom Sénégal boo génnee jigéen yëpp goitre nañ jigéen yëpp elles sont dépressives ñoom ñëpp dañu naan garabi nelaw jigéen yëpp stress bi rey na leen am nañu arthrose jigéen yëpp leel nañu seen bopp yi wattu na lu ko tax muñ bu bëri et li tax ma dénoncé ko du pour wax lu bon déedéet mais c'est juste pour attirer attention yi boo nekk ki nga bëgg jigéen bi na ngay ñëw mu nuyu la jëlal la sa saak tegal la taajal la nga lekk xool ko ci bët ne ko merci boo toogee ba mu yàgg nga jël ko ne ko kaay tey dama lay génne yóbbu la tel endroit jeunesse bu ndaw bi ñu ngi koy def yéen bu ngeen ko defal ñu ngi leen di nax la nouvelle génération la ñoom xam nañu valeur amour ñu ngi koy dund même si y a beaucoup de divorces parce que beaucoup se précipitent pour se marier alors que seen ay caractère ak seen vision bokkul te jigéen ñi muñatuñu du coup i divorce mais ñi ciy sëy ñu bëri ñu ngi nabb nabbee seeni jabar ñii di bann banee seeni jëkkër seen sëy di neex parce que xam nañu ne que loolu mooy dem dañuy nekk ci seen kër parents yi gis seen yaay seen papa li ñu dund ci souffrance ñu ne ñoom duñ ko mës a dund ñuy bañ loolu moo tax góor ñi ku ci mel ni monsieur Diop ni gis ne féminisme bi xëy na léegi dafa bëri parce que jigéen ñi dañuy kaas seen droit parce que loolu mooy yoon taxul mu nekk parité de parce que gëmuma loolu mais jigéen bu la tarbiyoo wan ko ne kilifa nga te kilifa du ci gëdd du ci saaga du ci euh, tongoo kilifa ki la gën a nekk kilifa mooy góor gi ñu naan dafa ragal jabaram ndax kooku mu ngi dab bànneexu jabaram yonent bi nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan dab euh, bànneexu jabaram kon ñun sénégalais yi avant de de de dire tabou tout ce qui on voit nañu jéem a dabante suñu bànneex ndax nit mbëggeel boo ko jox mu delloo loolu ko xaw ndax xol luy ñëw ci moom rek lay génnee livre bi loolu moo ko fi teg pour ku ci nekk xoolaat boppam ku ci nekk amélioré wuwaat ngeen di respectante di bëggante parce que bëgg kese moo fi am leneen luñ leen wax lu dul mbëggeel safaan la lii moo tax ma bind livre maa ngi jéggalu nag bu dee. Euh, mbëggeel amul frontière tubaab bi ni muy bëggee noon la nit ku ñuul ki di bëggee pourquoi y a des mariages mixtes parce que ñaari individu rek ñu gisante bëggante lu sa xol laaj loolu nga koy jox loolu kese la amul différence dafa fekk culture yi moo dul bokk. Sénégal tey jii boo fi doxantee fi sa copine si loxoom génn ba fële daal di koy langue fraîche la ñuy wax de boo ko defee ñu dóor la ay xeer ba nga tëdd ndaw soosu dootul sëy ci koñ boobu ñëpp koy bokkul suñu culture bu dee Europe boo àndee sa ku ngay bëgganteel wala sa jëkkër bu ngeen téyantewul seen loxo di defante ay bisous à tout de champ kenn du xam ndax yéen na ngeen bëggante alors que yéen vous avez envie de montrer au monde entier que vous vous aimez parce que mbëggeel kenn du ko nëbb na nga koy wane boo mënul bisu nit ki tamit bu sa jabar toogee jëlal saagam téye wan ko ne yaa ngi koy protéger ñu gis sa jabar sañse lu rafet di bu jot mu changer coiffure loolu mooy góor a mais yow nga ñëw sañse ba jekk bu ñu gisee sa jabar bu nga ne ko yow wool ma sa patron mais au nom de quoi loolu yëpp du ci amour donc amour bu chinois baat bu sénégalais bi c'est exactement la même chose <laughs> amour amul âge amour amul âge maa ngi delloo ziar bës boo bës boo bés boo gisee ku mën a définir mbëggeel nga xam ne kooku musul xam mbëggeel mbëggeel doo ko gis doo ko dégg te fu mu la ne saraax fi ni nga toll nii ak sa kurus bi jaaxaan ngay def wala ba

lu pur la loo xamante ni amul caaxaan mbëggeel boo koy fen sax bàlleen ma kàddu gi boo koy defee naka su dul noonu danga koy gis ci saa si ndax mbëggeel la yàlla gën a fonk Dieu nous a créés avec amour boo gisee léegi euh, xemmem bi bëri mbaraan bi comme vous dites xam nga lu ko waral ñooñu dañ leen masa nax te nee nañu ku ñu nax di nga fexe nañ la dul naxateeti mais du question ni du ñu bëgg de dañuy am ku ñu bëgg mënuñu ko jot wala kooku di leen métital ñuy dem ci keneen di ci fay di ànd ak moom ndax alal ki ngay àndal ak alal bés bu alal di jeexee nga bàyyi ko ki ngay àndal ndax taax bés bu pataawee ñaaw nga bàyyi ko baa mu feebar ki ngay àndal ndax dooleem bés bu ko ñàkkee nga dem uti ko feneen te loolu yépp dara du ci mbëggeel mbëggeel luy jóge ci xol la di dugg ci xol nga koy xool muy lox mu lay xool ngay lox mbëggeel na nga koy gëm yàlla boole la ku ko gëm ngeen fusionné ngeen ànd seen mbëggeel neex mbëggeel boo gis mu yàqu rek am na ku ci gën a bëgg moromam Mm-hmm. alors xol organe la buy dund kan nga gis mu dee jugaat kan rek nga gis mu dee jugaat mbëggeel soo bëggee nit lan moo tax ngeen di am ñaari jabar ak ñett kon kenn ngeen si bëgg kon ça veut dire ci des bëgguloo leen nit dafay bëgg ba plusieurs mais amul benn ci mbéngoo ak ba kenn du sëy kenn du tas mbëggeel amul benn mbëggeel bu méngoo ak ba ca des mais xol bindoo na noo xam ne bu gisee li mu bëgg dafay fudd te bu fuddoo moomatoo sa bopp. alors commencé na commencé na déjà de par sima sima bi ñu bind ci livre bi euh, livre bi daf ko wéral ndax euh, sima bi mu liiree livre bi ci la comprendre mu ne mais ndekete man alaaji mii man maa ko bëggoon même su ma wanoon ne bëgg na ma en tout cas ak man deful fi kilifa kon xeeb naa jikkoom te jigéen buy ànd ak góor ba xeeb jikkoom yal nañu yàlla musal ci sentiment boobu ndax bàyyi ma bi sax moo koy tane ci sa kanam doonte xëy na mbëggeel ba dina fa des parce que jigéen li koy gën a téye ci jikko jikko mooy gën a bëgg nga wan ko jikko bu baax jikko bu rafet lu tax nit di sëy koo xamante ni mus ko gis ñu ànd ànd bu rafet dem ba bëggante lool ñu ne dafay miin dafa dem ba bëgg te li lay bëggaloo kooku moo la koy wan mu ne saraax ci sa biir xol bii nga sëyal ko ba dee. jigéen du miin mëkk ba toog dina la miin de dina la sëy sëy bu rafet. mais bés boo ko defee naka si dul noonu mu ne la fu ñukk ne yàq bu naq di dem seeti leneen. mais Marie. Mhm. kii kii li mu wax nii. Mhm. jigéen dafay ñàkk pexe. moom laa doon bëgg a poser comme mhm. jigéen dafay ñàkk pexe toog. am nga suñu société yi. mais dañuy wax ni jigéen du bëgg dafay miin. loolu la ñuy waxee. parce que sa kii de sax dañuy toog may ko góor wax ni kii mosuñu woon ànd. Mhm. te pourtant da ngay dem ba gisoo un véritable amour après. c'est ça waaw loolu mën na am moom laa wax léegi di nga gis ñaari nit yu musul gisante sëy mais. nit ñu wanante cofeel goo xamante nii parce que bu boobaa jikko yi la ñuy njëkk a bëgg xam nga mbëggeel ci bët la commencé doo gis nit rek ne nopp naa la di nga ko xool mu am lu la neex ci moom mais nga dem ba ci biir bu la jikkoom doyee nga gën a suuf bu la jikkoom soofee nga retiré wu nu mu mel ni urul ay nii parce que bët mooy njëkk xool li muy xool lay jox sa xol ñi mësul gisante tamit noonu la dañuy gisante décider sëy ñuy def effort kenn ku ci nekk di nourrir amour bi di ko nourrir amour fleur la rek boo jàmbatee graine bi di ko arrosé chaque jour di ko arroser chaque jour mu indi la fleur boo xamante ni doo xam nu mu mel jigéen boo ko takkee te xamoo ko te suba su jot nga ñëw fekk ko fu mu toog nuyu ko nuyu bu neex jox ko dépense am ba mu mët di foog moom di kafak moom di ko boot di daw ak moom ci biir néeg bi ñëpp koy def moom mii da koy def ñëpp koy def ci àddina bi mais loolu dafay suuxal mbëggeel ba nga xam ne. yëf yi day màgg nobante daal di fay dugg boo xamante ni kenn mënu ko dindi loolu mooy àddina loolu amul titre sinon du ñu ne monsieur et madame foo gis monsieur et madame mbëggeel moo ko lal te mbëggeel amul tabu lépp fa nekk il faut juste savoir le vivre ah, soit dans la discrétion ou publiquement mais mbëggeel reste mbëggeel. tàngal man ma man man man aw ma xam-xam bu bëri ci yooyu yëpp li ma ci xam rek mooy waxtaan ko sànq nit yi bëggante bay reyante nit yi bëggante bay xaru xam nga lu koy indi dañuy am benn contentieux bu ndaw fekk ñoom ñaar ñu ngi bëggante bu bëgg a dee bi sax mun na bañ a jóge ci ñoom jóge ci beneen nit extérieur mais du ñu gis ku leen yedd lu tax du ñu gis ku leen yedd parce que li leen di metti ci seen biir xol du ñu ko wax parce que dañ leen naan si tabu bu jigéen du naree dem wax ñu ne ko waruloo weer sa jëkkër nanga war a muñ denc ko fu mu koy denc feneen fu dul ci biir xolam mais bu xol bi demee ba fees bu xool jëkkëram dootul gis nit te ki nga bëgg torop doo ko yemaleek dara na ngay ñàkk ko que di ko gis mu lay souffrir la wala bañ la comprendre loolu moo tax violence yi di am di am gën góor mooy dóor jabaram parce que bugg ko mais fase ko mu dem mais boo gisee violence yooyu c'est parce que dañuy bëggante mais dañu dul am système de communication ñàkk système de communication boobu ak nit extérieur yu leen di yedd parce que jigéen bu ñu fi dóor foog ne bu génnee wax ko ñu ne ko amoo fayda loolu mooy indi problème yu grave yi ngeen di gis mais dañuy bëggante ñoom ñaar ils ont besoin d'aide ces gens-là c'est tout xanaa dañ la menacer soo dee ah ah nag voilà mooy désillusion boobu mais